rahman rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dalin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliq wal qatimi lima sabaq nasir al-haq bil haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أق قدره ومقداره العظيم mbokki taalibi baay yi waaw ah, ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ah, di jiital ci nuyoo bi al haam muy ah, cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass di ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan ak yàlla woyofal yan bi nga xam ne moom la ko baayam wuutal muy Cheikh Ibrahima Niass di ko ñaanal yàlla yàlla woyofal ko di ko ndokkel bu baax di dellu di yeesal ndigal li nga xam ne jox nañu ko ñuy organiser gàmmu ci bisu 20 avril ci fii ci dakaar ñu koy ñu ngi yeesul yeeslal ndigal loolu di ko yeeslu di ko yeesal di di di ko ci gërëm bu baax a baax a baax ñaan yàlla yal na yàlla dëgëral ko te guddal fanam ah, buñ nuyoo Cheikh Mouhamadul Mahi ñu ngi ci teg ah, représentant xalifa bi fii ci Dakar muy Cheikh Mouhamadul Lamine Ibrahim Niass di ko moom tam di ko ñaanal yàlla yal na yàlla may ko wér te guddal fanam di nuyu euh, imaamul akbar muy cheikh Ahmed Tidiane Ali sise moom tam di ko ñaanal yàlla yal na yàlla dëgëral ko te guddal fanam di nuyu ki nga xam ne dina ànd ak ñun ci gàmmu gi muy port parole xadra bi di cheikh Mouhamadul Mahi Cissé ñu ngi koy ñaanal yàlla moom tam yal yàlla dëgëral ko te barkeel ay jëfam ñu ngi nuyu tamit euh, suñ président national Cheikh Mouhamadul Munhamina Ibrahim Niass mi président national Jamiatu Ansaaru Diin te bokk ak ñun gàmmu gi nekk ci euh, sol ci ñaari mbaxana muy mbaxana euh, président Ansaaru Diin wante nekk conférencier aussi ci bisu tey bi muy bisu euh, gàmmu jëppal ci màggal juddu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci atu grégorien muy 20 avril ñu ngi nuyu tamit euh, Cheikh Mamadul Makki ñi nga xam ne guddi gi moom moo ko daan taxawee physiquement ca bayal ba ca école Zeyda Mariam euh, bisu contexte bi nga xam ne moom lañ nekk tax moom loolu mënta am wante ñu ngi koy nuyu di ko ndokkeel moom tam di ngeen ko gis euh, mu def ci waru garam ci bisu tey bii ñu ngi nuyu tamit di tatagal euh, oustaz Euh, Babacar Ñang euh, Babacar Mohamad Roqi Ñang Babacar Omar Roqi nit euh, ñi gën koo xam ci Babacar Ñang Walfadjri ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu di ko ndokkeel bu baax di ngeen gis ne ànd naag ñun aussi ci organisation bi ci temu conférence yi nga xam ne moom lañ moom lañ joxe ñu nuyu tamit oustaz euh, Alioune ndaw euh, mi nga xam ne joxoon nañ ko jox nañ ko tem tem conférence bi euh, guddi màggal juddu yonent yàlla Muhammad ci année grégorienne oustaz ñu ngi lay tatagal di la nuyu bu baax a baax a baax di di ñaanal ñoom ñëpp di leen ñaanal tawféex yàlla yal yàlla barkeel seen seen jotaay yi ba lépp luñ ci jàngale rek ak lépp luñ ci wax ah, yàlla ah, jotali ko ñi nga xam ne ñoo koy déglu ak ñoo koy seetaan te barkeel ko ñu ngi ah, rendre hommage mbooleem jamiyatu ansaaru diin ñu ngi leen di rendre hommage di ko commencé ci président national comme niñ ko waxee di ci teg Euh, le secretaire général national muy tonton Ousmane Thiam di ci teg euh, cabinet bi euh, di ci jiital Amadou sàmb Cheikh Tidiane Gaye Ibrahima Lopez Abdou Salam Thiam mi nga xam ne moo yor communi commission communication ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooñu doon ak Jibril Sarr ñu doon jàppale ak mboolem techniciens yi ñu àndal ñu doon jàppale si réalisation Euh, gàmmu gi euh, ci te jóge woon ci bureau national euh, ñu ngi rendre hommage aussi suñ papa yi nga xam ne ñoom ñoo yoroon ansaaru diin muy tonton Ousmane Bitey tonton Ablaye Thiam Mohamed Mod Ñang mi nga xam ne yàlla jëlee na ko fi tey ñu koy ñaanal yàlla yàlla yërëm ko te xaare ko aljana di di di ak suñ papa Malaw kamara ak Magay Kundul Cheikh Tidiane Kouta ñëpp ñi nga xam ne daal jaar nañ fi eh, yor jamiyat ansaaru diin bii nga xam ne tey ñun la ko yàlla teg ci suñ loxo ñu koy ñuy organiser gàmmu gi muy gàmmu jëppal te bàyyi loon ko eh, juddu yonent yàlla baay Baye loon ko euh, la région de Dakar mm, ñu ngi leen di ñu ngi leen di rendre hommage bu baax a baax di leen wax ne ñoom ba tey retraité wuñ organisation bi dëpp ñu commencé réunion yi ñoom ñu ngi ànd ak ñun di ñu xelal di ñu wax def leen di bàyyi leen di waxtaan leen ak diw def leen ak diw nangam tànn leen thème bi kon ñooñu euh, nekkatuñ ci ci instance yi wante ba léegi ñu ngi liggéeyal. jamiyatu ansaaru diin kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla uh, may leen fan wu gudd bu ànd ak wér uh, barkeel seeni njaboot ci barke yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi mi nga xam ne mooy borom guddi gi ñu ngi ñu ngi gërëm uh, suñ collaborateurs yi collaborateurs yi nga xam ne ñoo nekk ak ñun ci coordination bi di ci jiital collaborateurs yi ñu ngi ciy jiital euh, président yi président groupement yi président groupement bu géejewaay oustaz Moussa Dembale président groupement bu Pikine euh, Mohamed Ñang Mohamed euh, Mbeng ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen jaay jëfal ak euh, oustaz Barham Seck mi nga xam ne moo jiite euh, groupement bu dakaar mm, di leen gërëm bu baax mu ngi fàttali ne yonent bi dañ ko war di màggal jamono bu nekk rawatina nag bisu anniversaire am euh, mu jagleel ko la capitale du Sénégal mooy zone bi nga xam ne fi la lépp dajee politique yi intellectuel yu mag yi oustaz yu mag yi ak jàngalekat yu mag yépp université yu mag yi yépp ci capital bi la dajee moo tax mu sant ñu ne nañ fàttali nit ñi ne euh, yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa moom tam am na datu anniversaire bu dut rëbbiyal awal bu dut fukk ak ñaar ci rëbbiyal awal muy le 20 avril xale yi buñ ko déggee danañ xam ne anniversaire yi ñuy feete feete anniversaire juddug yonent yàlla Muhammad muy 571 euh, le 20 avril 571 après Jésus-Christ kon euh, bàyyi loolu lañ ñu jox ñun waa Dakar kon nañ ci góor góorlu bu baax a baax di gërëm euh, participants yi participants yi mooy ñi nga xam ne ay personnes ressources lañ kenn ku ci nekk toll na fu sori yónnee ñu alalam yónnee ñu. dooleem yónnee ñu xam-xamam yónnee ñu ay pexeem pour réussite événement bi ñoo ñëpp ñu ngi leen di gërëm ku jege ak ku sori di gërëm mboolem taalibe bàyyi di leen ñaax di ñaax suñ gannaaw bu ñaaxee suñ bopp di wax ne euh, jamiyatu ansaaru diin bii nga xam ne moom lañu bàyyi ñes digal ne nañ ci nasoo ñun ñëpp nañ ci gën a góorgóorlu ku amut woon carte fii ci région de Dakar na nga góorlu jokkoog groupement bi nga xam ne ci département bi nga dëkk pour am carte euh, loolu mooy li nga xam ne mooy message yu jamiyatu ansaaru diin ci xew-xew bii nga xam ne moom lañ nekk muy euh, màggal juddug yonentu yàlla Muhammad wala taxawee anniversaire u juddug yonentu yàlla Muhammad ci atum jant bi muy année grégorienne di euh, la nuit du 20 avril kon ñu ngi sant ñu ngi gërëm ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla barkeel guddi gi lépp luñ ci yëngatu yàlla na yàlla nangul ñu ko lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla na ñu ko yàlla nangul ren nag comme ni ko conférencier yi waxee leer ci kaw leer la dafa tombeek weeru koor kon ñu ngi ñu ngi euh, ndokkeel di ñaan yàlla yàlla na yàlla nangul ñu jëf yi ci màggal juddu yonent bi wante yal na yàlla nangul ñu jëf yi ci weer yi nga xam ne moom lañ nekk muy weeru koor barkeel yëngatu yi barkeel dal yi nangu liñ ci liñ koy jaamu ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ma zalik ala llahi bi aziz wassalaamu aleykum